baaxul baaxul maanaam géejawaay kenn mënu koo xaaj géejawaay lépp benn la buñ ko defee kees nii xam na lu ma koy wax bu baax ah. waaw xam na moo sam solo waaw ka parce que la de guerre ñëw fi taxaw taxaw taxawaayu guy garab ma ah. kan nga tuddee taxaw taxawaayu sa bopp na leer waaw ah, bàyyi nga léegi journaliste nga léegi yow faram tuur xam la la de guerre si tànkam yi comme ni ma ko waxee woon biree ko xelam après naa la wax nag de. dixième bëgg nañ. dixième dixième bëgg nañ. waaye ñun defal nañu bañ defet incha taala dina ko tuuma daan ko. li may wax ne nga dugal dama bëgg lii nii. nga dugal ko. incha allahu taala la dëggee dina tuuma si da takk ndaay ñoom dañoo gën. comme ni ñu lay. du tey de. du doon tey de du doon tey de. ma ne du doon ma ne eh ñu ne volontaire ñun. ñu ñàkk ñu dërëm. ñu ne volontaire. am na laaj yoo xam ne. waaw yow amoo benn leçon boo jëm mu daan la amoo loo jàpp ne kooku la amoo benn leçon boo jëm. kaay man mooy naa ñëwal. li may wax dem bëre. daa am looy critiquer mu daal. nekk ci géej waay. yoo tax rek expliqué. tey la dëgër champion la. kenn ëppale wu ko Guédiawaye titre foncier la fi am comme ñëpp fii la Balla Gaye dëkk fii la Thiassé Thiassé dëkk fii la Gouye Gui dëkk fii la Alioune Seye dëkk fii la ñëpp dëkk fii la ñaamu ndaw dëkk mais la dëgër yàlla da koo def mu nekk champion boo xam ne da koo xaral boppam gis nga autorité yi Guédiawaye yi war nañu am habitude boo xam ne la dëgër buy bëre dañ ciy def seen ñàkk def seen doole champion bu doy ni la dëgër mun bëre démb ñu toog ba vingt-deux heures dara ñëwut mel num Lat Diop moo fi ñëw am lu mu fi bàyyi imagine ticket di jar cinq mille lan fii nii li fi nekk nii lépp lépp lépp exemple nii dix millions sax naa bañ a doy ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen doo duggee firnde Daaru Salaam déggoo ko si ñëpp a bëgg a def stade xëy na ñun ñuy nekk ay mag mën nanoo génne suñu propre moyen ku ne génne cinq dem dagg say ticket mais dafa ay boo yoo xam amuñu moyen bu ñu jëndee ticket mbër mi tamit mënul jël avance ba pare préparer combat pendant des mois bëgg nekkoon dëkk fii la Malick Gakou dëkk candidat président élection présidentielle fii la Abdou Aziz Ndiaye dëkk combat bi passé moom ak euh, Boy Niang Baye Alé yàlla na ko suñu borom yërëm te jégal ko dafa génn xaalisam jënd ay ticket ñun kër Baye Alé Ndiaye nañ jëlee ticket mooy woote autorité Guédiawaye la dëggee du amee combat nañ ci sonn comme ñeneen ñi nañ amee combat mais est-ce que mooy problème bi ak digganteem ak waaw li waroon autorité lan kenn nag xaar ma yàlla bi fi Aliou nekkee daaw ñu am ay problème tukkee gaa amee ay dara mooy suñu maire ku baax la amul benn problème doomu dëkk bi la day jàppale da day di jàppale Balla Gaye di jàppale ñëpp déet Amet ñëpp lay jàppale ñëpp la fi nekkal ndax mooy suñu maire du ñu dëpp micro rek lu wax ndaka suñu noonu ndax wax dafa garaaw du xasee ba génn lu duggaat ñuy ñaan yàlla rek autorité yi lii wees moom wees na ba pare xam naa ni moom li mu doon xaar moom c'est trop tard du ko mën a génn kon stade tarki a ah, ëpp non ma ëpp mais jàpp naa ni ñu bëri dinañ volonté wu ku ci nekk génn sa propre moyen dem jënd sa ticket dem stade. bay laa sa message rek pour ëllëg beneen combat bu ëllëgee Lac de Guiers du amee combat. na gars yi lii moo tax Lac di yéex am combat parce que promoteur yi bu ñu xalaatee ni vraiment bu ko xam nga lamb benn lomine la lamb tànk doo dooy daanu rek ci ngay am ay nit mais yàlla duy def daanu woowu day xaw a métti gis na fi Yékini pourtant moo nekkoon roi des arènes pendant des années mais daanu gis nga ni ko doon def ci lamb ji mais lamb doo daanoo da am da ngay am ay jàppale mais tant que daanuwoo dañuy bëgg nga jóge fi suñu borom nag mi ngi koy suturaal te tey wax na ma nag doy waar bari ki démb dama ñëw fii guddi gi vingt deux heures ko lamb jii de faal bu sañoon da fay sa bakkan da nga koy teg ci digg yoon ak noo ko amee nag baax na ba avertissement sax ñu bëgg dem victoire victoire la mënuñu incha allah daa gëm yàlla ni yàlla mooy maye ndam waaye du may ñëw sama ruux gii fi laa koy bàyyi nga ni ma lat de guerre moo ma wax kon ataaya du am yàlla ataaya du am. ah bu ataaya amul rek mu neex loolu mu waxoon si te teggi tànkam ma teg fa ba léegi da koo confirmé. waaye ak xel. ak xel. ak xel. da nga sant loola ku daan nees daan Babacar Diallo daan Batika daan Tafatik képp ku Balla Gaye daan. la dëgër daan na la mu Modou Lo rek. si te fekk katu masoret la. Modou Lo moo leen moo leen différenté. am naa benn question. kese. wuy wuy wuy man li ma bëgg a jaaxal mooy. lak lan mooy problème am en boo xoolee tey wàllu entraînement tey géejawaay ku doon investir sa xaalis roi des arènes ci mbër ñëpp ci Lac de Guiers nga investir ci côté entraînement ci côté sérieux mais lan mooy problème bi ba tey à chaque fois chaque combat nit ñi daam ay jafe-jafe ba ci moom mbër bi waaw loolu mooy mooy comme question bi mooy question bi moo waxoon sànq rek noonu lay demee xam nga suñu borom mooy mooy mooy demee noonu xam nga Balla Gaye ak Lac de Guiers doo xool ñoo bokk géejawaay mais bokkuñu popularité dëgg la ndax Balla dafa nekk nit koo xam ni doo comprendre suñu borom mooy def loolu ci doomu aadama teew champion bi mu nekk moom la Lac de Guiers nekk xëy na Balla ak Lac de Guiers seen différence mooy bi ñuy nekk xale Balla dafa nekkoon banlieusard pur et dur ñëpp a ko xam si kër yëpp fu nekk la daan dem daan fubali fu nekk lay dem di bëre fu ne lay dem di xeex mais Lac de Guiers dafa nekkoon nit koo xam ni dafa timide dañ koo téye à part liggéey footballiste wàcc toog jàpp ñaamuram loolu moo man màggaale nag loolu moo waral la teewul nag kee di doomu Double Less magu Sa loolu day joué ci ñoom ñaar. mais léegi comme que loolu day joué popularité boobu est que popularité boobu bu lakk amee. du indi popularité am boole ko bu lakk pour mën ko jàppale mu am mu am. mu am non Balla Gaye ak Lac de Guiers réeroowuñu. ñoom ah. ñaar. ñoo bokk Casamance gañ dëkk ay mbokk lan amaana ñun ñii dañ cee wàll yaan rek di supporter nii. mais ñoom ñaar réeroowuñu dinañ déggante téléphone dinañ gisante téléphone Balla toll na ci ko lamb boo xam ne mun naa ñëw dem a stade mais Balla xamante tey bu ñëwoon fii nii dugg ci kër Lac de Guiers amaana mën euh, ah. loolu ngay teg ci table ji yow loolu lay teg ci table ji ndax loolu def naa dégg it Balla mënu ta ñëw fii bu ñëwee fii perturber nit ñi nit ñi dañuy jaxasoo fii Lac du xam nu muy defee ay saraxam te daa war a confronté wu ndax combat dafa euh, dafa gàtt quoi loolu tax Balla mais tey këriñ gi du sax ah këriñ gi du sax lan këriñ këriñ maanaam ataaya ji bu ataaya ji lañuy ñuy bañ. non non non gëmuma loolu ndax combat bi dafa am différence de taille bu bari bu ci am ndax jàpp naa ni man moom la dëgër lamb ji nii li ñu njàkkoon muy code de popularité. ak jàppale yeeg mooy décision bi lamb ji nii. moo koy may nan la koy mayee nag. mooy mu suul ay tànkam. décidé décidé ko fu si ta nekk. mu fàtte angal yi. ba jàppanteeg moom ba jàppanteeg moom moom su neexee ñu waa Guédiawaye mën na mais yow ne ngeen ni Siteu dafa mën a bëre ñoo kon weddiwul la mën ah. kaamil la ndax Siteu doo xoolee fi mu jógee ak fi mu si nii jàmbaaranteem moo ko indi fii ci làmb ndax tey amoon na ay booyam yoo xam ne ñoo débuté ñoo débuté lu mamba la daan na ko mel na noo recul mais après fu mu mujjee mais da koo gëm waa jàmm gën ni ko yaa nekk nekk tuulewut di entraîné bu sunu borom dimbali ko muy bëreeg Lac de Guiers la kuy dem bay bëreeg Lac de Guiers rek champion la ku daan Tapha Tine doo cuula daan Issa Pouye daan Zoss bëreeg Eumeu Sène bëreeg Eumeu Sène trois fois ku ci nekk am benn ñu sànni benn bi bëreeg Modou Lo ñaari yoon daan daan cappa culi di fi ne woon pendant des années kooku jàmbar nga dëgg la jërëjëf oto yaa ngi noonu di avancé